mbokk jullit yi mbokk talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ muntaxa basiru mbàkke xalif général di murid yal fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ abo mbàkke fàlilu xalifa sëriñ fàlilu mbàkke xadima rasul ci kilifteef ak ci njiital sëriñ moustapha mbàkke xalifa sëriñ mouhamadou lamine bara mbàkke fàlilu sëriñ fàllu mbàkke di galas xadigéey moo am mbégte di leen cant gi muy amal at mu nekk ca Touba Gueye région de Thiès commune bu Thiénaba muy bésub sant bésub màggal bésub fàttaliku bésub ñaanal alhaaji bara mbàkke fàlilu sixième xalif général des mourides samedi fukki fan ak benn ci weeru décembre 2021 ci Touba Gueye ren di onzième édition bi ñu tudd ko Serigne Abdou Samane Mbacké ibn Khadim Rasoul di ci rendre hommage rahmatullahi alayhi Serigne Abbas Mbacké Daaru Muxti Serigne Abdoulaye Mbacké Yàllaay Buur Serigne Jili Mbacké Daaru Salaam Serigne Moustapha Mbacké Massamba Serigne Mamor Mbacké Falilou Serigne Modou Makhtar Mbacké Daaru Manaan Serigne Cheikh Jëmb Fall Serigne Ahmed Tidiane Seck Thiénaba Baye Abdoulaye Thiaw Laye kilifa yu góor ak yu jigéen yu sunu borom dogal ñu wàcc liggéey njàngum alxuraan xasida ay ñaan ak i bernde ñu addiyal ko borom bés bi dana amit consultation gratuite muy pat mu kenn dul fay dara cérémonie officielle bi 16h30 21h le conférence yi minuit ba bët set kurelu xasida yi jankat ba Serigne mustapha Seck ñu di yegal jabotuk Serigne Touba gep mbollem cheikh yi talibey yi mboolem këru diine yi ak mbollem ñu wëllarante won ak aladji baram bakay Fallilu rawatina njitu réew mi son excellence El Hadj Macky Sall gouvernement opposition bi société civile ñu ñaan ci yalla kep ku teewe bés bi mu don sag pajum aajo sag defaru tay ak ëlëk ci barke السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته